Saliou jërëjëfati Serigne Saliou bokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu te di leen jaajëfal di nuyu waa Touba yëpp. nee na mi ngi nuyu waa Touba yëpp. nuyu cantakoon yi. nee na mi ngi nuyu cantakoon yëpp. di bokk nuyu sunu mbokki murit yëpp. nee mi ngi nuyu sunu mbokki murit yëpp. di di di leen di siyaare. nee mi ngi leen di siyaare yéen ñëpp. ci weeru safar yi. na mi leen di maa ngi am mbégte. nee mi ngi am mbégte bu di barkeelu ci noonee sëriñ bi daan def. nee na am mbégte di barkeelu ci loolee sëriñ mooy di teeru nag yi. nee mooy di teeru nag yi. di ci sant sëriñ Touba. nee di ci sant sëriñ Touba bu baax. maa ngi nuyu Serigne Mountakha. nee na mi ngi nuyu Serigne Mountakha. di ko màggal. nee mi ngi koy màggal bu baax. di ko siyaare. nee na mi ngi koy siyaare. di nuyu Serigne Cheikh Mbacke. nee na mi ngi nuyu Serigne Cheikh Mbacke.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 Serigne Khadim. Serigne Khadim Dioune. moom ak ay rakam. moom ak ay rakam. du ma fi nekk di leen lim. mais nag du fi nekk di leen lim. su ma limee Serigne Khadim. su lim naa ñëpp. nee lim na ñëpp. li ngeen fi gis. li fi gis. ci ay nag. moom moo ko wuti ji woon. moom moo ko wuti woon. sonn ci. sonn ci. def ci lim ci def. ci lépp. maa ngi seereel kanamu àdduna. sëñ Saliou Diouf nee na mi seereel ci kanamu àdduna. ni am na sama ngërëm. ni sëñ Khadim Diouf am na ngërëmam. sama rakka.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 ba tax na ba tax na ñun de dëxëñ nañ suñu bopp ci loolu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 maa ngi leen di sant. nee mi ngi leen di sant. maa ngi leen di gërëm maa ngi sant waa Jannatul Maxwa ci njiitu Serigne Babacar Mbaye du ma wax ba eggal te ñooñu du ma leen beral ab nuyoo bokki taalibe yu góore yooyu ci njiitul Serigne Babacar Mbaye maa ngi leen di sant boobaak léegi li rek lañ ko ànd ak